yi. yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf lu campagne bi gën di dem candidat yi gën di sàkk ku ci gën a roko si sa morom nga kii la soleil national xëy ak ñun njëkk ci yenn candidat ak seeni kàddu muy Anta Babacar Ngom di Alaaji Mali Gàkko di Boubacar Camara di Pape Djibril Fall di Déthié Fall Thierno Alassane Sall Amadou Ba ngi dem élection yi di jege juróomi fan ñoo ci des candidat yi yokku seeni loxo ci promesse yi ku ci a rëy sa morom ay digéra nga ne kii la lise ko ne ko boole ci di defante ak di sànnantey xéeru réy ci seen biir Amadou Ba ni ci xët mu njëkk journal Les li may ñaan waa réew mi moo di ñu bañ a jël Sénégal di ko jox ay parental yoo xam ne génn gu ñu sax maternel moom Amadou Ba journal bi mi ngi ñuy waxit ne Ousmane Sonko kaañoo na ko démb ba xolam sedd sur soit andil ñu ay kàddu yu mu nangoo ci yenn ciy candidat bokk na ci Pape Djibril Fall mi ne moom gannaawum bandang musuta jalgati dërëmu réew mi Aliou Mamadou Dia bu pur feelu ko di xam ne a a a su falo ci région bu Diourbel ci la fas yéene sukkandiku ngir lawal ko ci Sénégal Bassirou Diomaye Faye ne gaayam yi bés bu ngeen ma falee du ngeen ko mës a rëcc Khalifa Ababacar Sall ni ci nikaay bi boo demee Fuuta li ñuy wax mooy Fuuta tampi waaye boo ñëwee fii ci Sédhiou li nga fiy dégg mooy pakaaw fatale maanaam pakaaw bégul candidat beneen mu di Idrissa Seck journal bi nee nañu moom bëgg-bëggam mooy bu faloo tàggale Kër Massar ak inondation Walf Quotidien nee leen bés bu ngeen ma falee dinaa régler problème inondation ba li ko mbokkam yi doon def mu di di ko rukk ci suuf ak doon ko xeex point actu mi ngi ñuy wax ne loolee jeex na gaa ñi teg nañu ko ci suuf anki dina kay nañu fi ñu tollu tembe kay ñoom responsable yu benn bokk yaakaar ñoom ñëpp booloo doon benn taxaw ci wetu Amadou Ba loolee nag ginnaaw bi président Macky Sall responsable yi ne nañu dem jàppale ji Amadou Ba professeur Moussa Baldé ministre éducation nationale di responsable politique ca Kolda professeur Moussa Baldé ne ne ginnaaw bi mu sante askanu fulaadu ci teeru bu daw yaram ak mobilisation bu rëy bi ñu may Amadou Ba keroog ba mu jaaree ca Kolda Moussa Baldé teg na ci di wax ne fulaadu wundu nañu waa Benno Bokk Yaakaar seen yaram a tàng jër jamono ji ne Moussa Baldé toj na keroog Kolda Mamadou Mamour Diallo mel ni fitt gu sànni ca Louga wu téeméeri wata ak juróom fukk dugg njàmbur gi di wër di campagnal Amadou Ba Souleymane Ndiaye njiital sab comité woon boppam sax journal bi nee nañu fas na yéene soobu nañu soxna Fat Bintou Pouy njiital mouvement ak yaay fal Amadou Ba moom it jaaju na ngir Amadou Ba gagné élection yi démb rek yéenekaay bi mi ngi wax ne waneeti na ko cim ndaje mu mu woote woon ngir doonte jàppale jigéeni Tuubaay ci financement bu toll ci fukki million ak dund gu ñu mën a dimbandikoo ci weeru koor yi fa waxee ne bu ngeen jàppalee Amadou Ba wooteel ko ba mu fallu leen naqari woon ci réew mi rek dana saafara ñi seenu naqar am saafara Sud Quotidien nee nañu ñooy entreprise de presse yi ci réew mi journal bi bind ne Macky Sall yàq na média yi defal na leen baqus mu rëy démb bi muy dalal patron de presse yi fa la leen xam le ne dette fiscale bi entreprise de presse yi amal état bi nga xam ne boo ko calculé dana toll ci ñeent fukki milliards état bi dana effacé lépp redevance audiovisuelle gi média war di fay weer wu nekk mu toll ci benn million dinañ ko wàññi ba mu yegg ci cinq cent mille maanaam genn wàll nañu Ali Baba Koumba Naar tàndarma yi ñeent fukki milliards la Macky Sall jox yi ci réew mi ci weeru koor gi ñi mer ba futtute bëgguñu wax ci seeni mbir journaliste bi nee nañu ñooy grossiste Orange Money yi ci réew mi collectif gi leen ëmb démb lañ doon def ab conférence de presse doon becc ci kanamu journaliste yi coono ak naqaru xol ak métit wi ñuy dund ci seenub liggéey te nee nañu lépp nag orange leen ko teg gisatuñu seen bopp ci li ñuy liggéey grossiste Orange Money yi ne ñoo ngi sàkku ci état bi mu wax ak Sonatel sinon dana leen jaral ñu dem ba yegg ci bañ a defati Orange Money ci réew mi te bu boobaa lu toll ci juróomi junniy jeunes ci chômage lañu jëm te du bokk ak dara ñeen fukki junniy emploi indirect yi nga xam ne ci Orange Money lay jugee CCP